kii wax euh, dafa am na artiste yu génn di ko ñu koy tëkkale ak Youssou Ndour moom mm-hmm. euh, Wally Balago ñu mm-hmm. naan ko euh, yow yaa fi nekk nangam nangam gëroon na fi gëroon na fi ay polémique ki mm-hmm. si Wally Balago Seck ak Youssou Ndour yow ñu gën la xam si des fois ñu la xam lu bëri si si Sidy Diop la xamee pardon ci Wally Seck sa relation ak moom danga avant avant avant polémique xam nga xam nga Wally xale la te et puis bépp jeune bu nekk fii ci réew mi Euh, dafa am jeune talent am artiste yu mag. waaye jeune talent la waa am artiste yu mag. Youssou Ndour artist bu mag la kooku bokkutu ci. bokkutul sax ci kii bi waale bu ñuy wax tey ñu ngi koy tëkkaleel wala ñi nga xamante ne mooy génération. te waale Pape Diouf sax bokkuñ génération. bu ñuy wax Pape Diouf bokkuñ génération. très bien bu ñuy wax waa waale moom mën ci génération yeneen beneen génération la. Mhm. mais Pape Diouf ak waale sax bokkuñ génération. Pape Diouf après ñoom après ñoom Youssou Ndour la mu ngi foofu. foofu la nekk ñoom Aliou Mbaye Ndiaye ñoom Fallou Dieng ñoom ñoom voilà très bien. ak euh, boobu la la très bien. ah moom ñooñ la bokkaloon. ñooñ la bokkoon génération ñooñ la bokkaloon lim soo jamono. voilà waa waa Wally Seck après nag beneen génération moo ñoom Wally Seck léegi nag booy wax da nga naan ci génération Wally mm-hmm. moom bokk na ci li li tax mu doon seen monument mooy dafa liggéey. ok waaw côté boobu la ñuy wax mais il ñuy décortiquer affaire ñu koy teg benn par benn. par ku nekk xàmmee fi ne. très bien bu ñu jël dute di ko teg ci place su café. waaw bokk yi li ñuy sax. non du benn guy du benn. ok l'essentiel mooy waal yàlla dimbale na ko mu ngi génn nouveau international mu ngi ciy def benn liggéey ba nga xamante ne fi mu bëgg a egg egg gu fa mais mu ngi ci yoon ba nga xamante ne yaakaar naa ne bu ñu ko doolelee mun na fa egg. ok mais tëkkale bi ñu koy tëkkale fans yi ñoo koy def mais melomaan yi duñ ko def. que dafa am répertoire bu mu fi bàyyi tey hmm. waali amagul yenn répertoire yu mu fi bàyyi ya nga xamante ne ëllëg tey ñaanuma ko yàlla bu fi jóge woon dinañ mun dinañ mun ne répertoire waal lii la woon ok ok bàyyi na fi nag wooy ya nga xamante ne yàggul parce que bi mu dooree yàggul 2019 la door mais Youssou Ndour ñaataa ñoo judd mu ngi door ñu ok bëri na titre yu Youssou Ndour gagné sax ñun fekke wuñu ko ok fekk man fekkee naa benn benn répétition euh, Euh, ci ar ci animateur ñu invité woon mhm. euh, ci laa bokkoon euh, Youssou Ndour mhm. léegi gars bi ñëwee war a wala wala war a répété mhm. orchestre bi c'est-à-dire dañu wax bii li ñuy ak bi ak bii non c'est vrai dañuy ko waat rek voilà loolu gars yi defar très bien ba duñu duñu duñu duñu duñu mémoriser ñun son Youssou Ndour yuñ xam yu yàgg ay Soweto lañ xam yi mooy Nelson Mandela ak yeneen ak yeneen mais bëri na ko parfois sangay dox ba dajay ci tiktok bi na ah ndur kon mo woyone li legui kon koku koku monument la bokku ci mais wala ci génération vraiment mom moy sen mom moy sen mom moy sen manam ah. legui nak euh, xalé yi top ci ginaawam mhm. ñepp dañuy fexé melni mom wala ñu fexé pour raw ko parce que musique fofu la toll nit ki dafiy nekk nga fexé pour raw ko wala nga fexé melni mom legui nak fans ak melomaan du ben def ak dañuy am problème bobu waaw non Sénégal il faut ñu comprendre fans fans moy ki nga xamantene mom artiste am rek ko ñor loolu baax na waaw même boo génnee taanuma ci le artiste def moom mu saaga la parce que bopp artiste moo ko ñor ok waaw mélomane mooy ki nga xamante ne moom moom moom moom musique lay déglu musique lay consommer. musique lay consommer. comprendre nga. Mhm. mooy ki nga xam ne musique lay consommer te musique bu ñëw jaar ci yoon da koy consommer te du ko jaral sax mu polémique. c'est vrai c'est vrai comprendre mhm. mooy mooy ci làmb moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy kii amateur ak ak supporter supporter moom mun na reyante ndax mbërëm ndax mbërëm mais amateur moom day ñëw dagg biyam toog seetaan xool li jaar yoon melomaan noonu la def melomaan mooy jënd album mhm. meloman moom mooy dem di streamer fans bi moom moom lu wod wodd ci réseaux sociaux yi wala wodd ci yooyu loolu kooku amul njëriñ artiste bi ok waaw mais melomaan bi dëgg-dëgg li nga bëgg melomaan moo koy def ci artiste mooy jënd album mooy dem di dem ah, galaa diine yi ngay dégg yooyu ñu mooy ñëw ànd ak soxnaam di ah, reer mais fan su moom guerre ak xeex rek la fiy nekk ak wax wax wax wax waaw benn côté nag dinañ amal njëriñu artiste parce que mooy polémique bi mhm. ak tamit artiste bu defee yéen billets yi xamante ne leen arrangé ay trois mille deux mille quatre mille ci stade yi ñoom dinañ mën a dem jënd fi nekkal artiste moom mooy jàppale artiste ñun nag ci côté mélomane la ñuy waxee parfois mais Youssou Ndour moom wax dëgg yàlla fii ba siècle siècle ñuy judduwaat Youssou mm-hmm. Ndour mooy doon roi di mbalax Sénégal fii mm-hmm. te du fi mës a jóg loolu ok mooy doon roi di mbalax fii Sénégal te du fi mës a jóg ate mën nga ni parti ba itam euh, ci suñu ay émission yi nga xam ne